بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين بك جلدي آه، نلين نيو ما نلين نيو دلين سيارة دلين بالو أق دلين بالو أق دلين يلا بالي حقيمي توب بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu taala alayhi wa sallam di jiite ci néew bi eh, suma doom eh, Mouhamad Lamine Lay Sweden ak itamit Aboubacar Gueye yent bi ci eh, Angleterre ak bokk yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru mag bi ñu nekk mooy weeru tabaski sulhijja weer bi nga xam ne moo mujj ci atu gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam atu jullit yi weer wi ci jëkk mooy bi ñëw si mooy muharram tamxarit weer wii moo ci mujj mooy sil hijja mooy weeru aj yi bu ko defee nag eh, aj moom fa tabarkallahu eh, yàlla moo ko santaane te mooy ponk bi mujj ci islaam eh, ku ko man def ko moo tax borom bi daf ne li man istata ilayhi sabilan tabaski yi tamit noonu waaye aj gi yàlla dogal na ren moom kenn mënul dem ci waruwaay fu dëkkul màkka yi dëkk màkka rek ñu aji tey ren ci kaaba ga feebar bi moo ko def te feebar boobu la yàlla moo ko fi andi moom mi ko fi andi nag moo ko fi mën a jëlee tabaski ngi mooy yàlla moo ko yoonal moo ko sant yonent ibrahim ibrahim rendi xar yépp roy ko ci moom la ndax moom ibrahim alayhi salaatu wassalaam moo bay ko saam bay fa soxnaam ànd ak soxnaam soxnaam saarata la ak doomam isaqa ànd ak soxnaam haajara ak doomam Ismail yàlla digal ko mu ñëw ba Makka mu nekk fa ak moom ab diir eh, ba mag neex xool neex a gis fa ñu bëgg xale yonent bi nag sallallahu alayhi yàlla moom ku ko booleeg leneen rek eh, mu ne la man rek nga war a bëgg bëgg googal nekkoon ci Ismail bàyyi ko ci Ibrahim wàññi ko ci mbëggeel rek yàlla yàlla ne ko nag kooku xam ne nag sa doom la te nga bëgg bëgg ko lool nag mu géwante ne ko dama lay digal pour nga indi ko mu yeew gis ne yaa ba suma doom yaa bunayya inni ara fil manaami ani asbuka fanzur maza tara yow suma doom dama gis ci may nelew ne dama lay rendi yàlla daf ma digal ma rendi la lu ci sa xalaat lu ko doom ji tontu yaa batif fal toomaru satajidni insha allah min asabirin min asabirina yow suma papa suma bàyyi defal li la yàlla digal li ñu la digal def ko xam ne yàlla moo ko digal defal li ñu la digal da ma fekk ci ma bokk ci ñi nga xam ne ñu muñ muñ na borom bi ne falama aslama watallahu lil jabini man alaynaahu an ya ibrahimu qad sadaqta ruya wafalaynahu bi sibin hazimin mu ne ko yow Ibrahim ma nga xam ne ba nga xamee ne ommatu na waxta doom ji doom ji d'accord mu ne ko dem ba mu ko ci rendi ko tëral ko bëgg ko rendi dawal paaka bi paaka bi dogul Ibrahim Ismaïl wax naa moom ñu ko ñawaral paaka bi ñawaral paaka bi ngir nga dog bi yomb ci yow tey takkal sumay bët ngir boo ma xoolee doo ma néega ren bi wax na ko wax na waaye Ibrahim dawal na paaka bi baatu doom ji wante paaka yàlla ñaw ko yàlla koy sant mu dog su ko santul mu dog du dog dawal na ko dogul mu dawalati dogul eh, borom bi ne ko yow Ibrahim li nga gëmentoon dëggal nga ko ren di nga sa doom ji man maa ko rëyal rek maa kon maa ko dagalul eh, mu ne mu jute jote ko jote ko xaaf moo xam ni mu rëy bi sifin la la wax mooy lu ñu rendi lu ñu ne xar la man a nekk xar di eh, ko génti dëgg la mu dégg ko mu ne loolu nag am nattu la boo xam ne metti la kooku la ñuy roy moom Ibrahim alayhi salaatu wassalaam lu tax yonent diineem lañ nekk yonent borom bi nee na ko ñoo bi mel ne Ibrahim toppal diine Ibrahim kon nag diineem moog diine Ibrahim benn lañu mm, ko defee nag loolu mooy tabaski loolu moo ko sabab ñun nag li ñu ci war mooy moom sunna la tabaski sunna la danañ ci insha allahu euh, seet niñ koy defee insha léegi mel ni tabaski li ci gën mooy xar mu góor nga rendi xar mu góor bu ñu tàppul boo ko amul ma ne benn walla nga ko am xar mu góor bu ñu tàpp xar bu ñu tàpp walla xar bu jigéen walla su amul béy si ketu béy ticket bu ñu tàppul walla bu ñu tàpp walla béy wu jigéen walla gis nga tabaski maanaa tabaski moom maanaa dafay dem ci bàyyi ko ci suuf jëm ci kaw xar la jëkkee ah, waaye ma ne boo amul béy wu jigéen nag mu gën nag woo xam ne tàppuñu ko moo gën kedai bunyi tak apa wala uh, eh, bujigen nak bujigen ko bayi ko fofa kerem ko yel kerem wala bunyi tak bi wala kerem bujigen lol moy walu tebaski lol len ci tan wu tek hadyu ko moy ñu dem makka lañuy rendi mom la gëna reey mom lañuy rendi moy ci kerem lañuy commencer jëm ci nag jëm ci xar jëm ci bëy loolu la ngir nit ñi ñu ko gën a bari kon nag ñu yàpp wu bari moom lañuy bëgg loolu moo tax euh, ñu sant leen ñu def xajlu ko defee nag ajam googu aj lañ koy def ci tabaski weeru tabaski ñu nekk màkka euh, dañuy jëf tabaski ñu nekk koo xam ne euh, dafa def tamatu wala mu war def tabaski daal dañ koy moom xaj yu la ñuy def xaj yu lañuy def ñu nekk fii ñooy def tabaski bu ko defee nag mu ngoogu tabaskee li ci war wax naa leen ko du sunna la soo ko amee def ko soo ko amul nag wàcc la bis bu jëkk bi soo amee def ko soo ko amul nga def ko ñaareel ba soo ko amul nga def ko ci bési ñetteel ba soo amul nag bési ñetteel ba ban wàcc na la sa éena joti na la nga éena woon def nga ko maanaam mënuloo ko def wante yàlla dal la kan defal ab yool tiyaabu kon loolu mooy tabaski bu ko nag eh, sopp nañ di di def bu bari ci weer wi eh, xoor baax na ci lool rawatina fukki jëkk yi xoor ko nga dem ba arafa ñi nekkul makka sunna la ci ñoom ñu oor arafa maanaam sopp nañ ko sopp nañ ko ci ñoom sopp nañ ko ci ñoom ñu oor arafa taxaw arafa waaye ñi demul makka moom liñ leen lii sunna ci ñoom liñ bëgg ci ñoom mooy oor euh, arafa te mooy bésu juróom ñeenteel mooy tombek alxames incha allahu euh, alxames tey la ajjuma ajuma ji bu desee mooy tabaski su fekkee ni alxames nag ci la ñuy taxaw arafa ñuy taxaw arafa bu ko defee sopp nañ or ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko or danañ la faral bakkaar yi ya ngi defoon ci at mi paase ak at ak mi ñëw si kon ku ko man def ko wante nag du farata soo ko mënee def ko soo ko mënee ñàkk ko def wante lu baax daal du doy fañ jëm lu baax lu fa ku man loo ko man rek loo loo ci man ci lu baax def ko yan yàlla dimbale euh, ñu fekke ko jàmm ñu def ko ci tàmbali ci bisimilah rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilah rabbil alamina te lépp lu ñu ci def yàlla nañ ko yàlla nangul bakkan bañ ci am cër seytaane bañ ci am cër mu ngi leen di ndokkeel ci weer wi ak ci at ak ci euh, li nga xam ne moom fi nekk ñu ngi ñaan itam yàlla li nga xam ne moom fekk nit ñi baax demuñu màkka kenn mënul tukki tukki bi nga xam ne daa nga ko tukki euh, dox bi wàññiku ngir feebar bi ñii dee bari lool ñi feebar bari lool yal na yàlla génne loolu moo ko fi indi moo ko fi mën a génne nañ ko ñaan mu jële ko fi te lii fajkat yi li ñuy santaane ñu di leen def ko dimbale suñ bopp de ko def di ko def te it eh, ñuy ñaan yàlla ñaan lañu am eh, di ko ñaan di ko sant di ko bale di ko balu nañuy baril astaghfirullah nañuy baril sant yàlla nañuy baril ñaan yàlla mu ñu ne ñaan leen ma may leen sant leen ma ma dolli leen balu leen ma ma bala baal leen daf ñu may te ñaanuñu ci ñaanuñu ko mu ne ñaan leen ma may leen nag nañ koy ñaan ngi ñaan yàlla mu déggloo ñu toppaloo ñu euh, at mi yàlla naatal ko euh, mi ñëw si mu ngi ñëw si nawet bi tamit yàlla nji yàlla saxal na ko dana ko yàlla saxal saxal na ko dana ko yàlla meññal màggal ko meññal ko ñoral ko neexal ko te ñu ak jàmm baril ko te ñu ko ak jàmm bi jaahi rasulillahi salawatullahi wasalaamu alayhi ñu ngi leen di tàggu fi beneen yoon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla déggloo ñu topp xool ñu wa kullu amin wa antum bi xayrin seen mbokk la Omar Ibrahim Lay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu